أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 laa yukallifu allahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa 'alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tuwaaxidnaa in nasiinaa aw axta'naa rabbanaa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 sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jiital ci nuyoo boobu ak siyaar bi saaxibul fadila cheikh muhammadunil muntaqa xafitahu llaahu di nuyu borom pàkk bi ñu nekk di sëriñ Abo Muhammad xalifatu Cheikh ma Maamoun di nuyu tamit laaj maam Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Mouhamadou Roqaya Mbacke Darou Salaam di nuyu mbooleem jullit ñépp di siyaar ñëpp ci ëtt bi ñu nekk di ëttub sëriñ Baara Fall di ñaan yàlla mu yokk ay leeram taas ñu ci barkeem di ñaan yàlla mu dolli tawféex defal jàmmi àdduna jàmmi àllaaxira mu ñu defal ñu ko ci suñu réew mi di Sénégal di yëkkati suñu kàddu fii ci daara yi tey siiru ansir daaru salaam ànd koog personnel bi nga xam ne ñooy liggéey ci daara ji ñëpp muy jàngalekat yi ak mboolem kuy yëngatu ci daara yi ak ndonga yeeg waajuru xale yeeg ñëpp ñu leen di siyaar di leen wàcceel seen wàccuwaay di am mbégte mu baax a baax a baax a baax ci bés bu rëy bés bu màgg ci ñun bis bu fonk muy bés bu alquraanu karim muy tarib alquraan ngir sargal dongo yi mokkal ñu jàpp ko ci le 26 bi ñu nekk di dëppoo ak àllarba ji di ñëw. ñu am ak jataay site bii di info 7 waaw am ak site internet bi ñuy wax info set di ko siyaar bu baax ak mboolem kuy personnel bi liggéey ci site bi di am mbégte it bu baax a baax di woo mboolem képp kuy safoo alxuraan ak képp koo xamante ni alxuraan ñor na la ñu ngi woo ci suñ boobu nga xam ni moom lañ dëgmal di tomb ak àllarba ji di ñëw bis bi nag euh, bii mooy quatrième édition boo xam ne ñu ngi koy def tuddee ko ay magi lislaam mag ñu yàgg ci diine mag ñu yàgg liggéeyal diine at mii nag di atum 2002 2022 bii ñu ngi ko tuddee Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké mi nga xam ne mooy njëkk wut wutu Serigne Moudou fii ci dëkk bi di Darou Salaam dara jaale ko tamit Serigne Mokhtar Sylla Imaam sëriñ jaga di ku yàgg ci ak mbaax di ku yàgg ci lislaam di ñaan yàlla mu feq aw fanam te dëgëral ko bu baax a baax ba naa li nga xam ni am na yéene eggale ko ci lislaam ji mu eggale ko dañ ànd ko ak moom ba tey di ci bis bi nag li ko tax a jug dabu ci ngërëmal sëriñ bi ak bëggub sëriñ bi ba tax na di ci dabu tamit di ci ñaanal suñuy waajur yi nga xam dañoo jiitu ju muy Serigne Bara Fall mi nga xam ne moo sancoon kër gi di ñaan yàlla mu yokk ay leeram di ko ñaanal tamit suñu waajuru jigéen soxna maam Xari Fall wante it di ko ñaanal baax sëñ Abdou Khadir Diop moom it di mu àllimul Quraan doon jàngale fii ci dëkk bi moom it ñu ko ci fàttaliku di ko ñaanalaale bis bi nag àllarba lay doon incha allahu rabbi bu ñu xëyee. dana njëkkee jàng alquranul karim ngir wàccaayu bés bi ay kaamil ànd ko ak ndongo yi ñaanal ci nag euh, suñu waajur yooyu ak ñooñu ñu ko tuddee sëñ Mouhamadou Roqee Mbàkke moom sëñ Modou Mamoun ñaan bu baax suñu borom yokk ay leeram ak ngërëmam te ta taas ñu ci barkeem euh, buñ jàngee alxuraan nag ba yoor yoor digg ba cëkk incha allah rabbi dina def ay xéewal berne ànd ko ak mbokk yi yenn ci sëriñ daara yi fii xam ne ñoo fi yenn si saafaxante ak ñoom incha allahu rabbi ba 3 heures jàpp 4 ñu daal dugg ca baas ba tàmbali liggéey bi incha allahu rabbi liggéey bi nag li ko tax a mooy maanaam sargal ak nduk ndokkeel alquran ci doomi jullit yi nga xam ne ñoo ko mokkal ci daara ji ren jii nag am na juróomi xale yu fi tari yoo xamante ni saytu nañ leen bu baax a baax a baax a baax ba yëg ni seen alxuraan rafet na lool euh, daara ji nag moom du def ku mokkal alxuraan rek daara ji moo lay teel laaj na bi du la teel incha allah rabbi dañ lay génne yóbbu la ci daara yu mag yi nekk ci dëkk bi euh, boo eggee ñu saytu la lañ ca wax rek ñun ci lool lañuy ñuy confirmer loolu la ñuy jàpp. loolu nag xale bi day kii rek ñu yebal ko mu dem tari ji dañ koy saytu ñun suñ jëm. ak mboolem personnel bi fiy liggéey muy daa euh, seriñ daara yi fi jàngale ñu àndandoo saytu xale bi ba wér ni ñu xale bi li mu jàngale li mu jàng mokk naru mbux ñu dog ko nag génne signalé ko yóbbu ko ci daara ci daara yi wér daaru salaam wala sax Touba yóbbu ci yenn daara foofu rek juñu doy yu yàgg def résultat bu ko defee nag daara jooju moo koy saytu ba gis ni xale bi mokkal na lam ñu ca wax rek la ñu doyloo waaw noonu la daara ji di doxee. daara ji nag yàlla dogal na am na ñu ngi ko sanc ci euh, janvier 2018 yàggagut xam naa ba mu dooree yàggut ñu ngi ko tàmbale woon fii ci raay bi abboon kër defoon fa daara ja yàlla dogal nag kër ga borom soxla ko ci dañ ko doog a tuxal si indi ko fii suñ kër waa jur waaw daara ji nag bi ñu ko indee ci suñ kër waa jur xam naa fii nag moom dañ fee tàmbale daara ji incha allahu rabbi fas ko fee doxal waaye nag yàlla dogal na daara ji moom am na barabu boppam boo xamante ni ña ngi fay naal ay liggéey ba liggéey ba départ démarré nañ ko xam naa ña nga ma ngay sore ña ngi koy nab na bi xam naa noonu ñu ko gisee ci image yi rek plan bi noonu lay tëddee dañuy bëgg incha allah bi loolu ci suuf am mbaar lay doon mbaar mu guddee 13 mètres 13 mbaar mu yaatu moo xamante ni doo nga dañu man di fanaan dina fa di jàngee incha allah waaye bu kuule woo dañoo bëgg a néeg ci kaw néeg yooyu nag ci la logement bi ci la donga yi fanaan moo tax nag fii ab jaarwaay rek la daara ji dëgg dëgg dëgg mu ngi fii ci marché bi incha allah daara ji dëgg dëgg mu ngi ci marché bi Daaru Salaam bii euh, pàkk boobu fa lañ fa fa lañ fa def euh, bu yàlla dogalee mu yebb mu yebb ak jàmm fa lañu toxal daara ji ba tax na nag euh, ñu ngi woo mboolem jullit képp koo xamante nii rek daara ñor na la wala nga bëgg a liggéeyal daara wala nga bëgg def saw ñaq ci daara ñu ngi lay woo ci liggéey bi yàlla boobu nga xam ni naal lañ ko te bëgg mu sëmm bi egg ak jàmm balaa yàgg ba mën koo sanc ndax fii yaatu na yaatuwut fi ñu nekk ni yaatu na yaatuwut ndax wax dëgg amuñu benn problème waaye nag sa ñoon fee egg ak jàmm ba gën a moderne ba gën a dëppoo ak jamono ban mën faa toxal daara ji mën xale yi mën a nekk ci situation yu situation yu gën a baax yi ñu nekk incha allah donte ñu nekk baax na sax wante nag daal daara ji mu ngi foofu ca marché bi Daaru Salaam bi tàmm leen liggéey ba mbaarum kulaas moo xam te ni liggéey baa ngay sori comme noonu nga ko gisee ci image bi incha allah dañoo bëgg buñ buñ buñ buñ buñ kuulee rek aj néeg yi ca kaw néeg yi dongay fanaan ñu aj ko ca kaw waaye ñu ngi ci tàllal nag euh, jullit ñëpp kilifa diine yëpp di ci tàllal mboolem jullit di ci tàllal mboolem murit képp koo xam bëgg na lu baax rek wala alxuraan ñar rek ñu lay woo ci liggéey bi yàlla boobu. it euh, daara ji day jël ay internat day jël ay externat ñu jàng di wàcc dellu seen kër waaw programme daara ji it dañuy jàngale fajar dañuy jàng fajar dañuy jàng marax. dañuy jàng tamit ci bëccëg bi njàngum fajar mi ñu ngi yeewu 4 heures 40 jàpp 5 heures diggante boobu lañuy ñuy yeewu dañuy jàngi it ba ñu julli fajar ba noppi bu ko defee nag ci la jàngalekat yi dem dallu ji donga yu doon jàng it ci lañuy dem dallu ji ba ndékki jot ñu yeewu ñëw euh, ndékki bu ndékki pare daal dugg 8 heures 8 heures la ñuy dugg ba midi demi midi 30 la ñuy wàcc ngoon gi it ñu gont ci 3 wàcc 6 marax gi it une heure de temps lay jàng marax bu ñu duggee si 7 euh, heures bu ñu taam la jàng bu 8 heures te gee jot ñu julli gee daal di mën a mën a wàcc. internat bi nag dañuy sol ay bulus comme ni ñu ko baaxoo xam ci daara yépp rek te it euh, di jëm suñ kemtalaay kàttan di dox ci nisaam muy programme dañ ciy dox suñ kemtalaay kàttan xale yi nag seen lépp fii ci daara ji la dañ leen di fóotal fii ci daara ji. Euh, dañ leen dañ dañ leen bulus yi moom lañuy sol am na ñaari paire bulus yoo xam te ni benn bi moom la sol ñaari peer bu yooyu lañ lañ lañ am daara ji nag daara yi tey siiru asiir la waaw yàlla dogal na ñun di wax di Seex Jili Faal ndongolo xeebul moo ko sos ci atum 2018 ci janvier ba euh, daara ji boobaa léegi dox na ci juróom-benn at yaakaar naa ndax janvier bi ñëw ci juróom-benn atam waaw boobaak léegi nag li fi mokkale ëpp na fukki nit waaw yàlla dogal na loolu waaw am na ay nit ñu fi mokkal ba nekkaat ci seen ba yeneen barab liggéey di liggéey njëkk loolu it ñun jaar nañ ci ay barab yu bari di fa jàngale waaw jaar nañ euh, Kis Moustapha ja Kër ñaŋ jàngale nañ fa ñaari at 2008 2009 bi Sëriñ Amidou Mbàkke Daaru Salaam bi mu wàññi ko yàlla yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barke moom it ci lañ ñibbisi bi ñëwee jaar na ci daaray maam Cheikh Anta fii ci Ndaam Darou Salaam jàngal nañ fa ab diirit 2009 ba 2006 ñu bàyyi koo fa jaar ci Sëriñ Moustapha Diop Ndar foofu ca Aliya Daara tey si Rancir Sëriñ Moustapha Diop Ndar moom it jàngale nañ fa 2016 boobu ca feeba ak 2017 2018 nag ci la yàlla dogal ñëw ubbi si daaray bopp di ci nab na bi kon daal loolu mooy programme Daara tey si Rancir bis ba mi ngi noonu. bisub lislaam la bisub alquran la bisub jullit la bisub mboolem ku ku yëngu ci alquran rek sa bis la woote bi nag woowu ñu waa Daaru Salaam rek ñi woow mboolem képp koo xam te ne alquran ñor na la baa nga yëngu ci alquran baa noo mën a jàppee ci téere bi rek ñu ngi lay woo ci bis bi di yàlla képp koo xam te ne teew nga ci bis bi yàlla yàlla faj say aajo ci barkeb ki